wa ala alihi wa sahbihi alghurri almayamin wa ala xadimihi wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin ma baad asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax te di amaat mbégte <coughs> ak kontante ci dalalaat mbokk yi nga xamante ne si nii yàgg nañoo ñun ci liggéey bi bala ñuy commencer ñuy am ay ñaan jëmale ko ci boroom bi di ko sàkku ci moom mu defal ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa muy may ko ak wér te yàggal ko fi lool ba dimbali ko lépp loo xam ne naal na ko ngir liggéeyal sëriñ bi suñ boroom defal ko ci tawféex ba mu am ci lu kawe njortam ginnaaw loolu ñuy ñaanalaat kilifa yu baax yépp tey ndokkeelaat ñëpp tamit ci bis bi nga xamante ne euh, moom lañ nekk nii di ko dundal muy bis bi nga xam ne moom la ku baax ki génnoon doon ci liggéeyali boroomam ba mu ñëwee am ci ay ndam yu bari daal di sàkku ci ñun fas yéene ko ànd ñun ñu ñu ko ci borom <coughs> subhaanahu wa taala kon loolu di am mbégte ak ay xéewal yu baree baree bari yoo xam ne am na te lépp mu yéene ñu ko kon ñuy ñaanit borom bi gën a dolli ay mayam ak ay xéewalam ak ay darajaam bu baax a baax ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy léppi mooy suñu lépp di léppi euh, murid yëpp kon ngir bañ a guddal bu baax rek tey dañuy amaat mbégte bu baax a baax di dalalaat sëñ Amdi Mbàkke mi nga xam ne jataay bi miin na ko lool ndax yaakaar naa képp koo xam ne yàgg ngay topp waxtaan yi nga xam ne waa muxaddamatul xidma ñi ngi koy amal fii ci bërëb bi yaakaar naa miin nga ko lool muy kenn ci membre yi daayira bi waaye tamit nekk tamit gëstukat bu mag boo xam ne dëgg fi yàlla day def ay waxtaan yu ama am solo xam ne képp ku ko dégg xam ne li muy wax njariñul kase la te it lu tege ci xam-xam la te doon lu ñu lu ñu rafetlu lool ñu yàgg ànd ak moom ci jataay yu mel nii tey jii tamit ñu ñu aman mbégte bu baax a baax di àndaat ak moom ci jataay bi nga xam ne moom lañ fas yéenee amal tey xam naa présenté gi duñ ci guddal ndax yaakaar naa comme ni ma ko waxee woon léegi rek ñu bari xam nañ ko ci ñun jamono jii nii liñ mën a tënk rek mooy étudiant chercheur la nekk fee ca France di fa yëngu di continuer foofu ay taxawaayam ak ay liggéeyam kon dañ koy dalalaat bu baax di ko bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu doogoo ñëw ci waxtaan wi nga xam ne moom lañu ñu seq ak moom kon sëñ am di tafaddal mashkura audu billahi min mayli li gayri rida wa min sududi amma sunna aw furida alhamdulillahi wa salla abada ala bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ sidna omar ñu ngi lay fay ab nuyoo bu baax di jaar ci fay googu itam di nuyu mbooleem bokk yi nga xamante ne bokk nañ teewee jotaay bi ñu nekk ak mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi seen sunu jëmm wala ñuy dégg suñu kàddu ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi te kàddu gi bàyyi fii ci jumaay sëriñ Touba ju mag gi fii ci Touba di amaan mbégte bu baax di ndokkeel mbooleem jullit ñi yëpp ci bis bu màgg bu tedd bi ni nga ko waxee Sidna Omar bis boo xamante ne bisum ngañaay la di bisub ndam di bisub xéewal waaye li lépp rek ñu war koo delloowaat boroom bi nga xamante ne moom moo ko sàkkal boroom may ko ci lim ko may te mbooleem ñett yooyu ñu wax yépp muy ngañaa yeeg ndam yeeg xéewal yépp ca moom la bàyyi koo yëg gi ñu na ci moom la bàyyi koo tax ñu war koo sant ki mu ko defal digal ñu sant ko ci kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ci ndokkeel mboolem jullit yépp di sant yàlla sunu boroom geneen cant ci tawféexal gi ñu tawféexalee ñu fekkewaat ko ak jàmm di ko ñaan moom borom bi subhaanahu wa taala nga xam telewul dara mu defal ñu tawféexi ñu fekk ko ay yoon yoon yoon ci mbaaxam ak yërmandeem Seydina Omar kon bu ko defee dañuy daal di dugg ci waxtaan wi ñi nga xam ne tey moom lañ fas yéene amal muy li ñuy tuddee ak al muridiya bayna nazariya wa tatbiq le mouridisme entre la pratique et entre la théorie et pratique bu fekkee ne samay tubaab jub na mm-hmm. maanaam ak murid ci diggante gisiin gisiin wi en tant que murid ñu gisiin wi lan mooy ak muridisme wala mhm. boog naka lañ koy gisee mhm. ak naka lañ koy jëfee mhm. kon dafa mel ni gisuma déggee bu baax loolu lañ bëgg a fas yéene waxtaane tey loolu nag duñ ci guddal dëgg-dëgg ci mawdon bi dañuy bàyyi rek sëñam di fas yéene ko poser question tey buñ doon laaj lan mooy ak murid wala ñuy gën a xuus dëgg-dëgg kon war nañoo xam lan mooy ak murit ndax moom mooy solos waxtaan gi ndax moom lañ bëgg xam mooy lan wala ñuy dikk ci uh, su ko defee loolu suñ ko xamee moom ñuy wax naka lañ gisee ak ak ak murit waaye tamit naka lañ koy naka lañ koy pratiquer kon daanaka suñ doon laaj daal dañuy laaj daal ne lan mooy maahiya al murid ya lan mooy ak ak murit waaw euh, alhamdulilah jërëjëf Omar ci eh, laytaay bi ak ak leeral gi leeral tomb bi ñu bokk bi bokk yi ngir ñu war cee fàttalante eh, wala labirante ak bokki jullit ak bokki taalibe yëpp xëy na xam bu néew lañ ci am waaye rek eh, li mu néew néew du tee rek ñu jëfandikoo waxi sëriñ bu mag bi mu waxoon ca maxaarixu niiraan ne fa kullu bi ilmihi qad baghila fa innahu qabla al mamaati yubtala képp koo xam ne yàlla xamal na la aslëf nga nay ca denc ko bañ koo seddoo ak nit ñi bala nga faatu yàlla dina la nattu xëy na ci loolu danañ ci mën a sukkandiku jàpp na li ñu xam akus néew lu mu néew néew lu tee rek ñu jéem a nab nabi ci leeral ca loolu ñu xam ngir bañ a tàbbi ca natt yooyu ñu dig ñii nëbbu lañu xam tontu ci laaj bi nga laaj mën naa jafe lool waaye itam mën naa yomb lool su fekkee ne rek sukkandiku nañ ci waat yi nga xamante ne sëriñ bi tënk na ci li nga xamante ne moom moo ko fi indi li tax ma ne moo fi indi dinaa ko leeral xëy na ci mujjuk laaj bi incha allah ci waxi Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamante ne moom mooy ñetteelu xalifa Serigne Touba nekkoon fii 1968 ba 1989 laajub lan mooy ak murit boo génnoon ci mbedd mi laaj ko lu tolloog fukki nit jàpp naa ne da am juróom benni tontu yu wuute ndax kenn ku nekk mën naa joxe moom na mu gisee ne loola moo war a nekk ak murit ndax man ngaa laaj koo xamante ne moom na mu jàppee ak murit mooy ka mu njëkk a dajeel te wan ko murit gi la kooka di jëf loola lay jàpp ne mooy ak murit par exemple wala ci ci misaal su dajee koo xamante ne moom ndaa jàpp ne ak murit mooy naan kafe di diglu xasida Eh, di yor kuur wala nga wala nga yor beneen melo wala nga sol sol sol col sàngam sol sa baylaat wala sab xaftaan buñ ñu buñ la woowee nga ne mbàkke bo boo eh, bo boo boo waree waat wala ngay dëggal dara tudd sëriñ bi eh, am na koo xam ne bu fekkee ne ci kooku ci moom la jàngee ak murit boo ko laajee lan mooy ak murit mën na laa jox tontu lu demee nii ma wax su fekkee da ngaa dajee koo xam ne moom euh, moom dafa jàng dafa jël ak murit dem ci baat biñ ko xaree ci arab déggee ca loola ba tax ñu indil ko euh, ñu indil ko ni ñu ko tëralee noonu ci arab muy al muridiyatu te buñ koy wax ci euh, buñ koy wax ci français muy nekk le mouridisme ki nga xamante ne moom dafa dem ci concept boobu dafa dem ci euh, ci ci tëggiin woowu mu jëm ko lañ bët jàng ca lan mooy jubluwaayu muridiyatu lan mooy jubluwaay la mouridisme que signifie lan lay firi kooku laaj boobu mu laaj da ko yóbbu ci mu dem ci ki fonde loolu moom nan la ko déggee nan la ko jàngalee su boobaa kooku boo ko laajee lan mooy ak murid wala lan mooy muridiyatu da dalay tontu selon li nga xamante ne loolu la jàng ca ka ko jàngalee na mu ko déggee su fekkee ne da laaj yitam keneen koo xam ne moom dafa juddu yaroo màggee jaxasoog ñoo xamante ne ay murid lañ mustaxam lu dul loolu soo ko laajee benn question moom fa mu dëkk nañuy toogeeg nañuy waxeeg loolu la lay tontu ne la loolu mooy ak murid soo ko laajee koo xam nag moom day seen murid yi rek waaye moom sax mën naa am boolewu ci boppam nga xam day koy séennee rek man ngaa daje koo xamante ne moom day seen murid gi waaye moom bokkut ci du bokkut moom woote woo wut ak murid kooko bokk ko laajee moom nam séenee ña nga xam ne mbooloo ma nga xam ne bokku ci nam leen séenee ñuy jëf wala ñuy wala ñuy wax loolu la lay tontu ne la mooy ak murid waaye loolu yëpp tontu yooyu yëpp taxul mu am solo lool dama jàpp ne tontu li am solo dëgg-dëgg wala ñetti ñett ñetti tontu yi ma yi ma yi ma wax ñeent laa wax benn bi mooy bi nga xamante ne laa jàpp ne mooy bi jub ñett yi ci des yëpp kenn ku nekk dala wax rek moom la nga xamante ne loolu lay dund wala kii wax la li nga xamante ne moom la gis wala kee wax la li nga xamante ne moom la dégg ñett ñoo ñëpp nag mën nañoo wuuteeg lool ni ki tëral almuridiyatu moom déggee te mooy ñeenteelu nit ki nga xamante ne moom ak murit da koo jàng ni ko Sëñ Tuubaa jàngalee mu déggee ko noona doonte jëfewu ko noona bu la tontoo li Sëñ Tuubaa waxoon rek tontu na ci laaj bi ci lan mooy eh, ah, lan mooy ak murit Sëñ Tuubaa mu baax mi baat bii mu tànn muy almurid eh, daa mel ne ñiy gëstu ci mbind sëriñ bi xaw nañoo amuk dëppoo ci ne sëriñ bi moom gisuñ fu mu tuddee tarixatul muridiya ñàkk gi mu ñàkk a tudd at tariqatu al muridiyatu wala tariqatul muridiya ñàkk gi ko ñàkk a lëkkale ñaari baat yooyu dafay joxaat beneen sens day dafay tax ñu gën a comprendre lan moo tax al muridiyatu ba nga xamante ne xamoon nañ baatu murid bi boo ko delloo étymologiquement boo delloo baat bi ci ci arab mooy les aspirants ñi nga xamante ne dañoo namm bëgg yàlla li tax sensu propre boobu li lay wan moom la ci Sëriñ Tuubaa jublu ñaar la benn bi mooy moom moo ko waxal boppam ci ab bayit idil muridu la yuridu abadan gayra ridar rahmani xaysu qasada murit bi mooy ki nga xamante ne bëggul lenn lenn lu dul ngërëmal yàlla moom lay aspire loolu lay wër kooku la la définir ne mooy almuridu ci ci définition boobu noonu li lay wanaat ne beneen li lay wëral li lay wéralal ne sens boobu la ci jublu mooy ñàkk gim ko ñàkk tënk ci boppam waxu ko almuridiyatul mbàkkiyatu nga xam ne maanaam yëf yi amul lenn moom loo xamante ne da ciy génn maanaam universalité bi nga xamante ne moom la ciy wane loola day joxewaat gën a day gën a joxe sensu euh, propre mot boobu nga xamante ne moom la moom la moom la jëfandikoo mooy mooy almuridu Sëñ Tuubaa daal li muy li muy mu woote mooy almuridiyatu mooy mbooleem koo xamante ne day daa nam ma am ngërëmal yàlla nga xam ngërëmal yàlla rek moo ko mooy koo xam ne almuridu man laa yamliku shay'an wala yamliku shay'an koo xam ne amul dara moomu dara dara moomu ko waaye ngërëmal yàlla boroomam rek lay wër lépp lu muy def tamit da koy def li wajhi llaahi taala te loolu mm, bu ñu dikkee ci bu ñu duggee ci yeneen tomb yi nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane danañ gis ban importance la simmeeku ci mbooleem li tax a jëf jublu jëm yàlla ji dong ci li ngay jëf ban taxawaay la am ci ne Sëriñ Tuubaa jàngale li nga xamante ne moom la ñuy jéem a leeral ni kon euh, ni nga xamante ne mooy tontu laaj boobu te mooy yetu mooy lan mooy euh, nit koo xamante ne bëgg-bëggam mooy yàlla kese ak am ngërëmam wutul leneen lu dul loolu moomu dara dara moomu ñi nga xamante ne ñoo jàppee noonu di gis loolu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ña kenn bu nekkee kenn kenn la bu am mbooloo moo xamante ne ñoom ñëpp dañoo dajaloo lool di seen biir nañ xam ne ñooy murid gi moo tax Sëñ Tuubaa ba ko le clerc laajee ñan ñooy ñi nga xamante ne ñoo bokk ci lii ngay woote da ko njëkk woote li ngay woote lan la mu ne ko lii may woote mooy woote bi yàlla wo fi fi yàlla bëgg jaam yi jëm fa ñoom laay moom laay moom laay fàttali mu ne kañ la sosu mu ne ko ba lislaam sosoo ñan ñoo ci bokk mu ne képp ku yow dégg muy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah gëm ne yónente bi yàllaa ko yónente lim jàngale dañ ko war a jëf ca tontu yooyu juróom fukki laaj ak juróom yooyu mu tontu woon danga nga cay déggee ne dëgg dëgg kii lii muy woote moom moom mooy mooy murit gañ xam mooy ña nga xam képp ku nam ma jëm ci yàlla moo tax léegi bi may wax ma tànn bu baax baat bi may wax mooy ki nga xamante ne moom jë moom limaalewul boppam ci murit yi am day woote woone moom du am murit pour moom du am murit waaye bu fekkee ne ci murit ci sens bi nga xamante ne moom la ko Sëñ Tuubaa di waxee képp koo xamante ne sa yitte mooy am ngërëmal yàlla na la wér ne soo ko bëggee ak soo ko bañee soo ko yëgee ak soo ko yëgul yaa ngi ci murit yi te ci njabootu Sëñ Tuubaa nga bokk ndax moom noonu la jàppee noonu la jàppee yëf yi li taxoon mu taxawal ko itam xëy na danañ ci ñëw ci leeral ko lu muy luy gën a leeral ci ne képp koo xamante ne yaa ngi ci lii yonent bi alayhi salaam mu rëddoon di ko jàngale yaa ngi ca teg sa tànk di ko jéem a jëfee na nga xamante ne noonu la wéree na nga jàpp ne ci li Sëriñ Tuubaa wootee te mooy murit gi loolu loolu yow yaa ngi ci biir mooy eh, loolu daal mooy mooy mooy mouridisme mu ci ni ko Sëriñ Tuubaa mu baax mi jàngale surtout leeral leeral gu am solo goog nga xam ne jot na ci am am na solo <coughs> ndax dina tax kenn ku nekk mën a xamaat lan mooy lan mooy mouridisme bu baax a baax mm-hmm. ndax comme ni nga ko waxee loo xam ne njàng dafa tënku ci njàngaleem sëriñ bi ak koo xam ne moom ci déggiinu boppam rek ak ci ñoom ñëpp ni nga leen misaale loolu dafay wane lu am solo kon day wane ne rek ci gàttal maanaam mooy ni nga ko waxee murit daal mooy koo xam ne yàlla képp moo ko moo ko tax a jóg yàlla rek moom la namm kon nga xam ne sëriñ bi moom li nga wax sàng rek moo ci nekk mooy képp kuy ab jullit nga xam ne maanaam sa yitte jëpp mooy yàlla mhm. soo ko wuyoog soo ko wuyuwul yëpp mu amu ci solo day mel ni kon loolu day firndeel eh, ñàkk gi mu ko ñàkk askanale ci boppam wala boog génne gi ko génnee si boppam mhm. tax ñëpp man cee man cee bokk mhm. bu fekkoon ne da ko askanale ci boppam kon keneen bu taxawee fee ne moom bokk ci kon su boobaa lii nga wax ngi nii du ci mën a dugg waaye génne gi mu ko génnee ci boppam Mm-hmm. mooy wane ne même ki jàpp ne maanaam bokku ci sax mm-hmm. maanaam mën na cee bokk mm-hmm. ndax moom njabootam daa jàpp ne mooy njabootuk njabootug lislaam ji kon loolu ay leeral yu am solo ngir njëkkanteeg waa waxtu wi rek xëy na duñ guddal foofu lool lool lool dañuy ñëw rek ci question boo xam ne doon ko junj léegi euh, mooy lan moo tax nag murit gi maanaam taxaw wala boog lan moo tax sëñ bi taxawal muridisme gi waaw ci lan ci lan ci maam lan moo nekkoon objectif am wala boog hmm. lan moo nekkoon jubluwaayam hmm. ci taxawal gi nga xam ne taxawal na ko taxawal na ko mouridisme hmm. jërëjëf xëy na loolu sax danañ ci wane waale nan la ko jàngalee sax euh, mooy ni mu ko théoriser moom sëñ Tuubaa euh, euh, question bu moom tamit daanaka li waxoon ca question bu njëkk bale Euh, bii nag moo ko xaw a gën a xóot tuuti ndax bu njëkk balee képp kuy woote woo ak murit wala muy seen morit yi wala mu dégg ak morit rek boo ko laajee mën naa tenter ci tontu selon moom la nga xamante ne moom la am ci ay information wala moom la xam ci xelam wala moom la jàpp waaye bu dee bii nag euh, mënoo wax ne nii la objectif yi moo taxoon Sëñ Tuubaa taxawal yoon wi wala nii la Sëñ Tuubaa jàngalee yoon wi te delluwoo ci ay delluwaay faw nga am ay delluwaay yooyu dellu wala lu ko mooy na ngay tuumaal sëñ bi ci ne nii la ko waxee ci sa xalaat selon xalaat yow waaye boo bëggee wax ni ko Sëñ waa jàngalee waaye wala moom li taxoon mu def ko moom su boobaa man li tax mu taxawal ko li tax mu taxawal ko li mu doon woote ci laay njëkk tontu soo ko defee daal di ci koy bootal nag eh, nan la ko jàngalee moom li tax mu taxawal ko moom wax na ko moom ba mu jugee rek euh, ci ci suba am na benn plateau bu bu doon am ci chaîne bi euh, benn mbokk taalibe bu ko doon def euh, Cheikh Moustapha Diouf leeral na ci ne bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ne day wanne ne Sëñ Tuubaa amul moroom ñàkk gi maam jaamu yàlla gi nga xamante ne moo taxoon yàlla sàkk ko mësta def lu wuuteeg loolu maanaam moom gën a jamono ba ni fi jógee ci jaam yàlla googu rek ci la sax ci la nekk ci la mas a nekk loolu nekk gim ci nekkoon daa tax yàlla loolu moo tax suñ tu yàlla bind ko loolu teguma ko ci sama xalaatu bopp sëñ Basiir boo demee ci mi nanul baaxul xadim dafa wax ne sëñ Tuubaa xuliqa rabbaniyan maanaam Sëñ Tuubaa yàlla da koo bind spécial pour mu koy jaamu nit ñëpp yàlla da leen bind pour ñu jaamu ko waaye moom yàlla da koo bind ci mënta mooy yàlla da koo bind ci maanaam bind ko ci muy jaamu yàlla maanaam moom jaamu yàlla nii rek lañ ko bind noonu la ci pësteef lañ ko bind ci pësteef jaamu yàlla maanaam mënta mënta def leneen moom niñ ko bindee eh, niñ ko mooñaale ak jaamu yàlla ba nga xamante ne cër yi da ciy làgge daa daa daa daa gën a jamono rek di jaamu yàlla am na ci sax ay témoignages yoo xamante ne ñeneen ñu bokkut ci tariqa bi wala ñeneen ñoo xamante ne eh, duñ leen limaale ci ñu wuy si woote Sëñ Tuubaa bi ci lu officiel eh, bind nañ seede ci moom lu mel noonu ci ñu ñu réew mi lañ woote bi koy wootee la taxoon mu woote ko la ci ëpp ba muy jàngale yoon wi nam ko jàngalee moo lay xamal ne yii ñàkkoon ngim fi ñàkkoon a am moom moo tax mu koy muy woote loolu kon bu ñëwee ci ñaareelu question bi dana leer waaye objectif principal bi tax muy muy muy woote wooteem bii nga xamante ne la fi nekkoon lépp daa da da caa nekkoon moom ndax li fi nekkoon mooy tariqa yi fi nekkoon moom da caa nekkoon kon du lum umpale lum xam la waaye dafa gis ne loolu yëpp lu ñu war a yeesal la moo tax mu ne lil Mustafa nawaytu ma yu jaddidu sunnatahul xarra way ni Ahmadu man sama jubluwaay mooy yeesal sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeesal sunna su bi sallallahu alayhi ci nan la koy defee ci xidma xidma googu am na ñaari ñaari sens xidma bu ko Sëñ Tuubaa di wax moom ak xidma buñ koy wax ci murid yi ñaari mbir la moo tax feneen dafa wax ne ubaayiul yawma rasulil mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa ni ma jaayanteeg yonte bi ci yeesal sunnaam si wala yeesal yoon wi mu rëddoon foofu su li fi jublu rek mooy pratique bi lim yonte bi alayhi salaam jàngale woon ak li nekk actuel su dans le terrain mën nañoo wute wute gañ wute woon moo tax ñu koy yeesal ndax lépp lu ñu yeesal rek daa fekk mu moo tax moom jubluwaayam moo doonoon wala li taxoon mu sos mu mu woote wooteem bi mooy yeesal sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu jubluwaayam boobu moom lan lay jariñ ñi mi woo mooy xettali leen ndax loola bu yeesut day fagg wala mu ràbb bu faggee dañ ko war dañ ko war a fëgg wala ñu faxas ko wala ñu ëf ko la ca sottee ko ci poussière ba muur wulus woowa dañ ñu ko war a jariñoo gis ko wala mu tilim ñu war koo fóot wala mu jeng ñu war koo jubbanti lum ci def lu nekk ki yeesal faaw mu teg ay stratégie wala ay manaaxij ngir mën ko ngir mën ko ngir mën ko yeesal euh, moo tax ña nga xamante ne ñoom lay yeesalal loola lak lam leen di jariñ mooy fa inni malazun wa mafza'u wa lim leen di jariñ yéen ñi nga xamante ne yéen laay woo ci yeesal gii ma yeesal mooy man làquwaay laa képp ku bëgg a mucc ci dugg ci ay jeng-jeng ku bëgg a mucc ci tàbbi ci ak gi nga xamante ne dañ koo coloré li yonte ma sallallahu alayhi wasallam woote woon ba mu nuru ko te du ko ku bëgg a mucc ca yooya maay rawuwaay bi fa inni malazun wa mafza kon yeesal gi moom objectif moo yeesal moo ko sant boppam déedéet sant ko boppam ndax moo wax ne tabshiruhu qadimahu bi fasda yonent bi alayhi salaam moo ma wax ne ma leeralal nit ñi yoon wi nga wooteel ñu ñu topp la ci fi nga ci fi nga ci fi nga fi nga war a jaar ñooñu bu leen woowee ñoom lu ñu wuy si ak xettaliku la ñu wuy si dana day mel ne day woote ne ñëw leen ma dimbali leen ñëw leen ma xettali leen moo tax boo demee te ci majmuwa bi da ngay fekk muy wax nit ñi day bu ñu xamoon li ne fi man danañ daw samp seeni xel ñëw wut si ko waaye réere giñ ko umpule ak réere ko moo tax ñu bañ a ñu bañ ñu bañ a daw si wuy ko ndax nit wërta daw njariñam te moom yeesal gii muy yeesal ak objectif woote gii muy woote jubluwaay bi mooy yeesalal nit ñi liñ mën a jariñoo ñu man koo jariñoo li ñu mën a jariñoo buñ ko wuy see dañuy xetaliku seen njariñ a fi nekk njariñ loolu nag léegi-léegi umpale giñ koy umpale moo tax ñuy bañ a wuy si kon faaw mu leeral leen ko ndax nit ñi buñ leen leeralee seen njariñ dana ñëw su ma leelaa diw sàngam kaay man ñàkk gi ngay ñàkk ñëw mën naa firi ak bañ waaye da mën naa am da ngaa xamul loo may doyee su su ne soo ne maa loo may doyee soo ma ko laajee ma leeral la ko muy sa njariñ da nga ñëw wala man ma yéene la njariñ li lool daan na la moo ne de nangam laa lay doyee tee ngaa ñëw ñaar yëpp mën naa nekk sëñ bi nag moom daa mel ne xaaru ñu ñuy doyee waaye moom kaay leen daan na nag njariñ nag nangam nangam yii nii moom laa leen doyee su ngeen ñëwee ma ma def loolu moo tax yeesal googu nga mooy objectif am mooy wa bi yajaddidi sabil bila idan aw alami yeesal sunna siyonte alayhi salaam moom laay def ci loo xamante ne du ci du am jalgati du amu tooñ du am mettital du am dara waaye lépp rek day tegu ci ak lewet doom ak ëmb njariñal kese loo xam ne jenn lor newu ci wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaaxu ni fil barri wal baxri daa nafxin bila dara dama ëmb njariñal kese loo xam ne jenn lor newu ci kaay leen rek ma xeetali leen ngir jëm yàlla yërmaande jooju doom ji am ci ndeyam yërmaande ji gën a kawe foofu waaw waxaat na feneen boo xamante ne beneen engagement lay tekki nga xam ne nam waxee ca waxiinu arab day wane ne kii kat li muy wax non seulement ñor na ko lool waaye am na firnde ju wér ci ne lu muy amal la moo demee ci muqaddimatul amdaax fi mazayal miftaax dafa wax ne wa sunnatuhu inchaa rabbi ubayinu feene wa bee jaddidi sabil lay wax u euh, jaddidu lay wax waaye fii nii ubayinu la wax fee dana damay yeesal fii ne damay leeral ñaari nuur na lool nuroo na lool waaye wute nañ am nañ sew-sew ndax li ñuy yeesal man naa am daa daa ràpp daa màggat wala daa daa daa wala daa fagg li ñuy leeral nag mooy dañ cee lëntal ak lëntal da cee dugg da ci am yu ci bool yu ci bokkut day am yu ci wàlli yaansi yu ci bokkut yee ca wàlli yaansi nag dañ ko war a leeral ba mu leer mu am xeet eh, xent segg la ca bokkut génne wurus wi mu leer nañ ñu teg ko nii ñi ko war a jariñoo jariñoo ko loolu moo tax bi mu koy jàngale am na neneen nu ko jàngalee nam ko jàngalee mooy lan wane ne yonent bi alayhi salaatu wasalaamu lii may leeral te mu di leen ci woo mooy yéen ñi nga xamante ne yéen a nam ma am ngërëmal yàlla te loolu moo war a ñor képp koo xamante ne ab jëriñ nga del muridu la yuridu al balan xayra rida rahmaani foofu lañ dellu si lii ma leen di woo nga xamante ne mooy eh, yéen ñi nga xam ne yéen ay wut ngërëmal yàlla rek ñor leen am na yu jaar ci diggante ba ko yonte bi jàngalee ña ña njëkkoon ànd ak yonte bi alayhi salaatu kat ñoom tegu woon nañ ci yoon ndax yi fi leeroon na ci ñoom lool amutoon benn rax waaye li fi jaaraat dugal na ci ay nax-nax léeg-léegi ak ay fagg-fagg ba wurus wi daa muuru mu laaj ñu leeral ko yeesal ko tëggaat ko ba mu leer ngërëmal yàlla loola ko ko bëgg am maa ngi leen di jàngal ñetti mbir yoo xamante ne bu ngeen ca tënkoo mooy li yonent bi doon jàngale dama faral di wax ne Sëñ Tuubaa dafa am ci facette boo xamante ne lu néew lañ ko ciy jàngat mooy Sëñ Tuubaa xosnu adaa bi mu am ak manhajiya bi nga xamante ne moom la am te kenn fekk ko ci maanaam Sëñ Tuubaa bu lay jox xam-xam nim la koy joxee day yomb dégg yomba xam accessible lu ko waral mooy dafa am méthode am boo xamante ne moom moom moom dafa moom dong moo ko moom moo ko moomal boppam ab méthode boppam la boo xamante ne moo ko moomal boppam léeg-léeg sax mu leeral ko ci yenn introduction yi boo demee Jawharun Nafiis dafay leeral ne xës gi may baaja way téere bi maa ngi koy jëlee ca Laxdari yu waaye objectif bi tax ma koy way mooy mu yomb gën a neex a xam ci ñu koy jàng loolu leeral ne man dama am sama méthode boo xam ne gis naa ne moo gën a accessible gën a faisable ci ñi nga xamante ne ñoom la war a jàngal ndax li mu jàngal lu ñu war a def la fiq lay jàngale ak yenn ci ay adab ak ay teggin ci njëlbeen ga kon man xajjee boobu Sëriñ Tuubaa am dafa feeñ ci mboolem li nga xamante ne noonu la noonu la noonu la jàngalee leeral li nga xamante ne moom la moom la doon wax moo tax bu ñuy wax euh, laa théorie du mouridisme mooy nan la Sëriñ Tuubaa moom nan la gisee woon li muy woote boo waxee théorie ku tudd ay théorie da ngay tudd ay concept am na ay concept yoo xamante ne moom moo théoriser la mouridisme ñetti mbir la Sëñ Tuubaa jàngale dane murit gi ci ñett yi laa laa yeesalee li yonent bi alayhi salaam jàngale woon ci laa bëgg ngeen jaaree ci pour am rida rahmaani bi ci jiitu mooy al ilmu al amalu ba ñettee mooy al adabul mardiyu ñett yi ci laa leen di yar yéen ñëpp ba ngeen egg fa nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo egg fa lañ bëggoon egg ñett yi nag du du du du raaya bi ay ay maslak la mooy ñoom duñu ay ay finalité mais ay chemin lañ ay yoon lañ yoo xamante dañ kiy jaar pour egg ca mujjantal ga mujjantal ga mooy lan lam tënkee woon si sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtiraar bi ci njëkk as-sidqu fi mahabbati cheikhi abad tumma imtisaalu amrihi xaytu warad ba na na mu jeexee yooyu ñooy raayaat yi yooyu ñooy ya nga xamante ne boo demee ba nga xamante ne yow dugg nga ñett yi boo ci nekkee rek yow murit nga nuñ la mën tuddee rek yow murit nga léegi nag est-ce que egg nga ci saadex gi wala góoj saadex gi te at darajatu siddiqiya moom leneen la ndax yàlla ba mu koy wax ci alxuraan ba mu tuddee yónente bi yónente yi rek siddiqin la ci teg nabiyina wa siddiqina door a teg wa shuhada wa saalihin wa xasuna ulaayka rafiqan kon dara darajatu siddiqiya moo kawe sax a saalihin gaa yu baaxee ñu wax ak gaa yu baaxee jiitu woon ak nangam eh, bu yónente yi jàllee rek siddiqin yay topp kon siddiq du ku sóobu rek daal di nekk sadiq comme ni nga xam noonu la gaa yi yombalee léegi mu ko jóg rek ñu la waa yow yow de sëñ Murid Saadax nga Murid Saadax nga nekk murid mën naa nekk ci kaw nga jaar ci maslak bi mooy nga jaar ci ñett yii nga xamante ne ci la Sëñ Tuubaa théorisé mooy ñetti concept euh, euh, la science la pratique et bonne yoo xamante ne ki nga xamante ne daa ñëw di woo motu ci li Sëriñ Tuubaa woote moom ñetti yi ci la moom lay tàmbalee su su nekkee ci ñett yi na xam ne bokk na ci mbooloo bi loolu li Sëriñ Tuubaa di jàngale moom dugg na ci léegi nag lu muy gën a am ab perfection ci li muy def lu muy gën a avancé di ko gën a di ko gën a di ko gën a dëggal di ko gën a gëstu di ca gën a xuus di ca gën a sóobu te nañ koy wommatee day dem ba egg ca nag eh, finalité te mooy nekk saadex foofu nag moom loolu ab dox la bi ci njëkk bi ci ñett yooyu bu ñuy waxtu yu matee ñu ñu taxaw ci waaw micro bi daa mel dama laa bàyyi nga xaw a xabaabal ci question bi waroon a ñëw mhm. damaa gis ne dañoo xaw a duggante moo tax ma bàyyi la Mhm. waaye mooy naka la ko sëñ bi gise woon maanaam loolu muy woote mhm. naka la ko sëñ bi gise woon loolu daanaka xam naa duñ ci taxawaat lu yàgg ndax daanaka li ëpp solo yëpp tontu nga ko bi mhm. ngay ndax kii dafa xaw a duggante moo tax mais li matoon a leeralaat foofu rek mooy eh, ñu xam ne kon objectif bi eh, bi nga xam ne moo taxoon sëñ bi doon doon objectif bu fekkee ne mënuñu xam yëpp tamit waaye yi ci gën a fës nga xam ne mën nañ cee teg baaraam mhm. sukkandikoo ko ci am njàngaleem moom mhm. mën nañu wax daal ne tajdid la yeesal la yeesal mhm. mu yeesal benn bi jës nit mooy eh, bayaan gi nga wax wala tab yéen gi tab yéen gi waaw ah, ñi nga xam dañoo xaw nuroo waaye bokkuñu maanaam moo ñu wax bay daan ne yeesal la bii ñu ne leeral la leeral la kon li ñi xam ne dañ koy yeesal comme ñoom ñaar ñëpp ñi ngi fi woon waaye eh, dañoo bokkul yi melokaan mhm, mhm. yu dal seen kaw yu am am ci ñoom mhm. ba tax eh, yoon wu nekk ñu mën koo sóoboo eh, comme lam laaj bu dee ci tajdir gi eh, dafa doon loo xam ne xaw a xëy na xawoon naa ràpp ba taxoon mu aaje woo yee salaat waaw ah, bu dee bee nag muy bayaan bi nga xam ne moom maam dañ dafa dem ba dafa lënt xam ne daanaka doon na loo xam ne xamatuñ ko bu baax mu ñëwaat nag ngir mën a leeralaat loolu pour nit ñi gën koo mën a mën a xamaat kon loolu las cay déggewaat tamit mooy ne indi mm. loo xam ne da sos waaye li indiwaat ndax loolu tontu woon nañ ko sax ca mm. lu njëkk la mooy bi nga xam ne ñi ngi koy laaj ne ko li ngay woote fan la fan la sosoo fan la sosoo mm. bi tontu ne mi ngi sosoo ba fi ba lislaam ñëwee waaw ba lislaam sosoo kon daanaka loolu am na solo lool euh, beneen question bi moo ne kon gisin bi te loolu yaakaar na euh, kii nga ko leeral nga ko leeralaale li tax euh, gisin boobu noonu mu lay woo mhm. di leer ci yow mhm. wala boog nga man koo nga man koo jëfee comme moom ni mu koy bëggee mhm. mooy dafa am ci nu mu ko teg mooy li nga xam ne leera nga ko ne moom la ko yàlla may mooy li ñuy tuddee xusnul ada mooy nga xam ne maanaam buy def dara def yi moo bokkul ak defeenu keneen defeenu keneen benn bi jës mooy mën xëjiyam méthode bi muy jaar pour pour pour pour pour def loolu loolu dafay wuute ba tey Euh, yeneen yi nga xam ne moom la moom moo ñu ko jiitu woon doon fa kii doon fa jaar kon loolu am na solo lool xam naa kon dañuy daal di kam boobu xam naa da tënk rek foofu bu ko defee mm-hmm. nga daal di ñëw nag ci euh, euh, quatrième bi muy pratique bi nag waaw mm-hmm. ah, xam naa xam naa xam naa bu ma bu ma daaneelee ci ci ci ci ñetteel tom bi noonu ko waxee bu ko defee xëy na lu ci mat a leeralaat nga leeral ko balaa ñu jàll ci ñeenteelu tom boobu noonu mm-hmm. Euh, te mooy ni nga xamante ne boo ko Sëñ Tuubaa jàngalee ba noppi. Mm-hmm. te mooy théorie bi. Mm-hmm. Euh, la pratique lan moo ci am. Mm-hmm. xëy na xëy na xëy na loolu moo ci am waaye. Euh, li ma jublu woon rek. ci ci ci daaneel ci ay ay kii yu néew xam na waxtu mi ngi de mi ngi waaxu bu baax a baax. mooy ñett yooyu mu mu mu jàngale. ni fii baatu murit nekkoon nga xam ne boo demee ci kutubu kutubu suufiya da ngay fay fekk ñoom ñëpp dañ daan wax baatu murit mais ñoom ci sens bi ñu ko doon jëfandikoo ak ni sëñ Tuubaa wootee ak murit fi ne muñ ne al buñ ne al muridiyatu kenn du dem foofa di leen ko lijjanti dañu jàpp ne lii sëñ Tuubaa woote moom mooy mooy al te al muridiyatu ni mu universelle nga xamante ne boo demee ci at tijaan ya da nga fay fekk dëgg-dëgg koo xamante ne daa jàpp ca buum ga dëgg-dëgg moom mënta mënta wedd ne ak murit ndax day xam lan mooy ak murit ku nekk ab xaadir yi dëgg-dëgg mënta mënta weddi loolu ni nga xamante ne l'islam noonu la général nga xam ne ñen nekkoon ay dëgg-dëggi ay diiney christian euh, chrétien mhm. ña nekkoon ay juif dëgg-dëgg mhm. la maam Ibrahima doon woote dëgg-dëgg loolu yëpp islam ndax mos a soppeeku mhm. loolu mooy yeesal gi nga xam ne moom la sëñ bi yeesalaat ba jëlaale ci sensu tur wi mu joxe rek dafa delluwaat ci loo xamante ne mboolem ña daan jaar ca yoon yu baax ya ñoom ñëpp dañoo jàppoon ne loolu ñoom aw seeni seenu nit noonu la war a noonu lañ bëgg mu mel ko noonu la war a mel mm-hmm. bi mu koy jàngale tamit ni baat boobu mel mm-hmm. concept yi mu jël mm-hmm. pour jàngale ko concept yooyu noonu lañ mel al ilmu boo ko jël da xam ne mooy ussu ah. lépp loo mën a jël fondement am la koy taw di ko ñoŋal di ko eggale fa mu bëgg mu egg fa mooy xam ndax lépp lu ak xam dañ bu tàmbali ba rafetee itam fay mujj ak ñaaw lay nekk maanaam bu bu fu baax tamit du jëm fu fu xam ndax ak réer moo mënta mat lu yàgg ni ñu nettalee ñaari ñaari selmaxa moom suñu àndee di dox ci xur yoo xam daami kàmb fa kastalu daanu wala tàbbi ci kàmb na leen yomb waaye bu fekkee ne ay njaacaar dañ caa nekk nag mën nañ leen a éviter loolu njaacaar yi mooy ñi nga xamante ne dañuy sukkandiku ci xam-xam mu leen di leeral di leen niital kon li njëkk ci am murit mu war koo def ngir mën a mu euh, mën a comprendre dëgg dëgg li nga xamante ne moom mooy almuridisme mooy muridisme li Sëñ Tuubaa woote mooy ak xam da kaa war am ci moom mhm. xam li suñ to suñ bay jax da koy wax mhm. eh, da ngay gis kuy daw di dox ci ak murit ba xëy faatu fekk réere nag murit moom nekk ci yëf yi rek di di xëy di gont di def ci yëf nekk te yow li suñ tuwaa di woote sax xamoo loolu loolu day am kon li ci jiitu mhm. mooy xam gi xam liñ lay woo mooy laan boo xamee ba noppi xam gi nag foofu bu suñ tuwaa di wax al ilmu jublu ci rek nga dem jàngi biographie Sëñ Tuubaa la moo toj fii du jubluwaay bi xam-xam fii li la Sëñ Tuubaa di woote mooy da yow sa jubluwaay mooy damaa bëgg am ngërëmal yàlla wuy si naa ndax fi ngeen woote mooy nag ku bëgg am ngërëmal yàlla nakaay ñëw naa mooy la ngërëmal yàlla boo ko bëggee am da ngay xam li yàlla bëgg ba noppi xam li yàlla bëgg mooy xam lislaam ndax ci ngay mën a jaar mooy bunt bi te loolu lay yeesal yontu bi alayhi salaam di woon kon xam-xam bii xam-xamu diine la ci jublu xam xam-xamu diine xam li mënta ñàkk ci yow nga xam ko boo noppee al amalu ga muy wax tamit du liggéey comme ni nga xamante ne ci yeneen la yeneen jëfandikaay yu bari loolu lañ koy firee foofu moom la mu ci jublu mooy jëfe li nga xam munoo xam ba noppi naa ne man de sëñ mi nee na damaa war a xam waa d'abord man mën naa dem jàng dinaa déglu kii wax na lii nangam nangam danaa xam mboolem jumtukaay yi nga mën a jaar pour xam xam la xam moom nga dem jël ab téere ñu jàngal la wala nga déglu koy jàngale nga xam ko ca wala nga déggee ko fenn wala nga jàng ko nga liir ko ñooyam al muhim mooy na ko xam loolu moo ci am solo léegi boo xamee ba noppi ñaareelu étape bi mooy nga jëfe li nga xam waa al amal moo tax wa al ilmu wal amalu jawharaani li xayri ni yejulu baane noppee nag mooy la xam-xam bii ak jëfe xam-xam gii daa am ñetteel boo xamante ne moo koy moo koy complété moo ko mooy tax mooy moo yor xorom si daal ndax ñi ngi fi woon am na ñu xamoon bi mu wootee di naan damay leeral ak damay yeesal gaa yaa ngi doon xam ndax ñi fi doon xam ñoo leen jàngal te kuy jàngal ak ko xam nga am na ñu ñooy ca biir ña xamoon am na ñu doon jëfe lañ doon jëfe dëppoo naag lañ xam ak dëppoo xam leneen la waaye li ca ñàkkoon dëgg dëgg dëgg mooy al adabul mardi ndax la la koy jàngal mooy ba mu ñëwee dafa soppi niñ doon solo soppi niñ doon waxee soppi niñ doon jëflantee moo lay xamoon ne la manqué woon dëgg-dëgg itik la woon mooy éthique te Sëñ Tuubaa ni muy jàngale éthique danaa la ñett la al adabul mardi mooy teg jiin yu ñu gërëm ma firi ci ci wolof ginnaaw yëf ci wolof lañu ko wax teggin yu ñu gërëm Sëñ Tuubaa bu lay jàngal teggin danaan la ñett la nit ki dafa war a am teggiin digganteem ak boroomam loolu sëñ Muntaxa jàngalante ci lu bari comme ci ci contexte Covid bi jàngalante ci lu am solo mooy teggiin sa digganteeg sa boroom mooy nga respecté li muy dogal lii la toog ci jumaa ji ñu julli ba noppi mu ne corona jaamub yàlla la loolu teggin la nit ki digganteem ak boroomam mooy lu la dal wa idaa maritu fa huwa yashfiini fa marit maritu foofu yashfini su ma dof dofloo ba feebar sama bopp maa wut ay microbe tax ay microbe nooyi lu ma warta nooyi wala ma jaar fu ma warta jaar ba feebar kon maa teg sama bopp waaye mun maa faj sama bopp yàlla may saafara loolu teggin la al adabu maal ma allah ñaareelu teggin bi mooy nit ki dafa war a am teggin digganteem ak moroomi jaamam yi nga xamante ne yàlla deneen bokk bind teggin yi nga war a sàmmoonteeg ñoom da ka war a sàmm gin yooyu ñaar la wala ñett eh, ki mag nga yë nga nga nga wormaal ko ki nga mag yow ki nga maaseel nga def ko ni sa bopp loolu jàngal nañu ko ci nax ju jàngal ju ko ci ay barab yu wuute boo demee ci matalu chifaay bi nga xam ne man dama kaa jàppee projet de société au lieu que ñu koy jàppee loo xam ne ku feebar faju rek <laughs> waaye siñ Tuubaa ab société la ci doon faj ndax lam cay wax jàngoroy ab société la du du du jàngoroy kenn nit waaw <laughs> jàngoro biir ak jàngoro bitti waaw <laughs> ah, ndax bu léeg mu wax fa saxam saxam nag jàngoro ràgg la moom yaram lay dal waaye da koy wax muy wax yeneen jafe-jafe yoo xam ne uh-huh. ay dan boog ay nangam yooyu jafe-jafe mën na am jafe-jafe société la gën a nekk kon eh, teg giin sa digganteeg ñi nga xamante ne ñoom nga ñoom nga maaseel wala ñoom nga ñoom nga ñoom nga ñoom nga mag nga yërëm leen ñi ngi ñi la mag nga war maa leen ñi nga xamante ne ñoom nga toll ñoom nga ñoom nga tollool maasee ñoom nga def leen ni sa bopp ñett yi boo ci def danga nga mucc musale bu fekkee ne ki la ki nga mag da nga ko yërëm ba doo ko lor te almumin la yadur bu fekkee ne ki nga xamante ne mag na la dang ko wormaal ko wormaal doo ko jalgati wala ngay def lu def deful ci sa diggante moom kon doo ko lor bu fekkee ni ki nga xam nga da ngaa moom da nga kaa def ni sa bopp doo ko lor ndax kenn du lor boppam te tay ko kon li yéwénal société bi ñett ñett yooyu ñett yooyu la mooy ñi teggi ni ni ngay ni ngay jëflanteeg ñi nga xamante ne ñoom mooy nit ñi nga bokkal sa doomu doomu aadama yi nga xamante ñoo nekk te mu nekk ñetti catégorie yooyu bi ko bi ko beneen xeetu teggin bi mooy nit ki teggin bi mu war a am digganteem ak boppin jëmmi boppam ji nit ki jëmmi boppam ji da cee war rus yàlla mi ko bind moomut ci boppam lépp loolu nag li mu firi mooy ab jullit ab jullit mooy koo xamante ne dafa jébbal boppam yàlla ku jébbal boppam yàlla moomutul ci boppam lu bari sëñ te wotoo nu ko neexee sëñu te soloo nu ko neexee suñu ta waxee nu ko neexee suñu ta lekk lu ko neex suñu dem fu ko neex kon teggin yooyu nit ki war a sàmmonteeg boppam ah, moom da ko war a sàmm nit ki suñ ta suñ ta boppam loolu am na lu koy lu koy firi nii ñaari junni boo ko yoroon xaalis la maanaam yaa ko ñaq yaa ko moom dañ la ko fay salaire wala nangam ah, boo tax woon fii di ko taal force de l'ordre yi mën nañ laa ñëw jàpp la ndax ndax yaa ko moom nii ci eh, kii bi mais sañoo am na jalgati goo xam ne sañoo ko cee def donte ne yow sa alale bopp la noonu la amee yow sa digganteeg sa borom am na ci jalgati yoo xamante ne yàlla dala koo may ni yow sa bopp waaye sañoo ko def sañoo ko def sa jëm bopp ji teggin yooyu nit ki da ko war a sàmm ci boppam da ko war a sàmm ci boppam nit moomut ci boppam lépp donte ni yàlla da koo may boppam da koo jox am xel jox ko mu mën a jëfandikoo loxoom bu ko neexee dugg fii bu ko neexee solo yére bi su ko neexee waaye ki nga xam ne ab jullit la moom daa war amay am ay teggin yu sàmm diggante mag boppam suñu solo soloo nu ko neexee suñ te waxee nu ko neexee suñ te dem fu ko neex suñ te lekk lu ko neex suñ te sax xoolee nu mu ko neexee dañ koo dañ ko dañ koo tënk ci ay ci ay ci ay mbir kon al adabul mardi boobu mooy teggin yooyu boo xoolee moom la Sëriñ Tuubaa jàngal ñi nga xamante ne ñoom la ñëw ñu ñëw nag ci benn société boo xam ne dañoo mel ne ñoom dañ caa wéet ndax ni ñuy comporté woo mooy teggin yooyu ñuy sàmmonte seen digganteeg seen bopp seen digganteeg seen boroom ak seen digganteeg seen jëmmi bopp sax daa tumuranke woon ci fi nga xamante ne fi lañ doon dund ba tax ñu leen ñu teel leen a distingué war na ñii da ñooy waa kër Ahmadou yi ñoom ñooy murid yi ñooy def nangam ñooy def nangam kon ñett yooyu noonu la Sëriñ Tuubaa jàngale ak mburit noonu la ko wootee itam ñëm njëkkoon woo ñu njëkk a ànd ak moom tamit ca loola la leen doon yar mooy fexe ba ñekk ñu xam dañ ak réer lañ xam ñu koy jëfe di ko def ndax ko xam te jëfe woo moom la ci sëñ bo inna ladina lam yaxsha rabbal alamin suñu war laysa bi alamin walaw afnal funun donte na ngaa xam fànn xam-xam yëpp boo dul jëfe eh, kama salil ximaar yaxmilu asfaran waaw kon da daa fexewoon woon ba lañ xam ñu koy jëfe ñi nga xamante ne weesu nañ ak xam li lim xamee ne mënuñoo nekk ay murit te xamuñ nam ko leere moo tax mu leen daan tombal tombal ay tomb moo tax mooy wax léegi ci ne méthode bi nga ni façon bi nga jàngee amul solo li am solo mooy objectif wu jàng nga mu am ci yow mooy ak xam ñi weesu woon ñu leen tere la ay téere rek di leen jàngal di leen firi lam leen def mooy di leen tombal tombal leen ku jaar fii def nii yoon waa ngi nii sawaraa ngi nii ajjanaa ngi nii lu baax a ngi nii lu bon a ngi nii bu noppee ñooñu mën naa am dañ doon jàng ñaar fukki téere pour comprendre loolu waaye ci méthodologie am daa xam ne ñii du leen fi téye ay juróomi weer di leen jàngal lool da leen koy wax léegi ñu jóg léegi daal di koy jafe. bala ngay gën a dugg foofu xam naa loolu day daal agsi directement ci euh, question bi ma la doon laaj sàng mhm. euh, muy pratique bi nag day daal di dugg si carrément ndax yaa ngi ci commencé dugg mooy ndax loolu moo nekkoon théorie yi mhm. su ko defee nag kon na xam naa da ngay daal di far continuer rek mhm. ma leeral ne kon yaa ngi dugg si nag ci pratique bi waaw ginnaaw bu nga xam ne jàngale na ko léegi wala boog am na yum teg nga xam ne maam moom mooy gisiinam xam na ne moom lii moom mooy gisiinam leer na muy ci xam-xam bi ci jëfe gi ak ci teggi ni Mhm. léegi nag mu des nag léegi nag pratiquer gi. waaw waaw waaw ah, wax na dëgg. Eh, ni ko Sëñ Tuubaa gisee moom yaakaar naa am na yu bëri ñu ci leeral xëy na mën naa am léeg-léeg mën naa mën naa mën naa bu bu fekkee ne leerul ci ñi koy déglu ci man mii xëy na ci la la demee waaye Sëñ Tuubaa leeral moom leer na ci moom bu baax. bu baax eh, waaw. bu dee pratique bi nag. Euh, am na lu ma tàmbalee junj noonu mooy ni nga xamante ne noonu doon jëflante ak ñoom xëy ni mu leen doon jàngalee ak yu mel noonu mais ñi suñ tubaa njëkkoon a woo lii mu théorisé lii mu théorisé moom moom la leen jox rek ñu koy appliquer à la lettre ñu koy appliquer à la lettre ndax murit gi ñett lañ ñetti xaaj lañ am na ñoo mooy ñetti génération ñetti génération mën naa koo mën naa koo tuddee noonu génération bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ne dañoo njëkk a ñëw wuy si woote bi sëñ bi woote woon ñam njëkk a woo ca Mbàkke Kajoor ñu ànd ak moom ba ñëw tuuba ñooy ñooy génération bu njëkk bi mille huit cent quatre vingt ba mu leen woowee ca Mbàkke Kajoor ñu nekk fa ba jóge fa quatre-vingt-quatre quatre-vingt-cinq ñu ñëw ñu ñëw fii Mbàkke quatre-vingt-six ñu sanc Daaru mu nekk fa ak ñoom ah ba 88 bi mu sanc Tuubaa mu ànd ak ñoom ñëw fii ba nim fi jugee 1895 dem Mbàkke Baari Jolof ñooñu ñooy génération bu njëkk bi ñooñu moom li mu théorisé la jox saleen ko ñu di di ca dox di ànd ak moom ndax eh, sëñ Axmad Njaay Ngiraan dama nga dégg mu wax loo xam lu lu xorom la waaye lu am solo dane murit gi du yow ni nga ko déggee waaye ni ko Sëñ Tuubaa jàngale la du yow ni nga ko comprendre waaye ni ko Sëñ Tuubaa jàngalee la mooy Sëñ Tuubaa ni mu koy jàngalee mooy naan ñooñu génération bu njëkk boobu lan lañ amoon euh, ñoom ñëpp am sens ñu fekk ku gis Sëñ Tuubaa rek am nga feex moom raa nga ko ñu ko dund loolu moom tawfeex waaye ak cëriñ daa xamut wala am njàng daa xamut dem leen maa ngi ñëw loolu ak loolu xamu leen ñu dem rek la Sëñ Tuubaa nag ñooña da leen wax kaay ñu dem mooy dañu ànd ak moom muy jëf ñu xam ne ñuy gis di def ca la mi mooy li mu théorie moom mi koy théoriser moo koy pratiquer ñoo ànd ak moom di ko pratiquer ñoom nga xam ne daanaka ñoom dañ koo dañ koo xaw a jàngee ci pratique ñoom ñoom théorie bi dañ koo pratiquer boobu yàgg ñu xam ne lii ñuy pratiquer kat nekk rek mooy nangam ak nangam ak nangam théorie bi day mel ne pratique bi day jiitu théorie bi ndax sëñ bi da leen ni womat ca loola yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada am da leen ni womat ci ñu ci ñu ci ci ci tërbiye leen ci xam-xam di doxeek ñoom ca noona di leen xëcc ñuy dem ci loolu moo tax ñooña kenn du ñoom moom ñooñu kenn du ñoom ñaareelu génération bi nag mooy ñi nga xamante ne ñoom mën nañ leen a tuddee ñi nga xamante ne théorie bi moo jiitu pratique bi nga xam ne ñoom dañoo ñëw fekk ñee ñu defar leen ñoom ñoom dañoo nekkoon ci yëf yi moom di di pratiquer ñee bi ñëwee nag jàngee ñee fekk nañ théorie bi am ñoom ñu jël ca théorie ba di ko jéem a jafe mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw Mbàkke Baari Jolof ba Mauritanie ba ginnaaw géej gi ba Mauritanie ba euh, ba ba Mauritanie rek ba Mauritanie ba xam ne ñoom dem nañ dem nañ Mauritanie def fa tër bi yow metti lool ndax Mauritanie ji sëñ bi daan daan ñoom daan nañ ko wax loolu sax ndax sëñ Tuubaa da leen daan wax ne yéen de yi rek mooy seen fay léeg-léeg mu dajale leen ne waaw fii de yëg naa ne metti na lool metti waay bi foo ko takk weesu na ko waaye nag na ngeen xam ne yéen ñëpp ëllëg seenu pay mooy àjjana bu leen ko wax ñoom dañ naan dañ ñenn ñi dañ naan ko ah sëñ bi xanaa du li fii metti rek moo tax ngay dalal suñ xel nii dañ ñu koy defalee daal <laughs> ah dañ ñu rek waaye eh, dëgg-dëgg ndax ndax ndax ndax dëgg-dëgg loolu loolu loolu demee gëm nañ li leen suñ towaat di wax waaye àjjana ju jan jëm leen jëm leen wan dañuy jàpp ne leen koy defalee noonu rek ñooñu lu wexxat lañ lañ gis te lañ lañ leen théoriser ñoom moom dañ koy pratiquer moom dañ leen koy sànni yi léegi ñu dem di ko jëfe moom mm-hmm. di di di di dund lu métti mm-hmm. ñetteelu génération bi mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci yeen jolof ba ba njaareem ba ba ñu bi mooy li ko tàmbalee 1907 ba 1927 génération boobu nag Euh, ñi leen ñeenteel danaa leen tuddee ñeent kon ñi leen ñeenteel mooy ñi nga xamante ne ñoom ginnaaw Touba ji lañ ñëw moom ginnaaw 1927 ba fii ba suñ joon yàlla tey ñoo ñëpp nag kenn ku nekk am nga sa taw fexe bopp xëy na am nga yoo xamante ne ci ci wàllu ta tatbiq am na ci eh, yoo xamante ne ñii dañ koy def ñii duñ ko def ci wàllu pratique ñu njëkk ña moom ñooñu ñoom seenu lay wees na moom ñoom moom nañ doon pratiquer loola mooy dëgg-dëgg murit gi mooy ña nekkoon Touba gii nga xamante ne ñoom la seen histoire gën a siiw nga xam ne suñ Touba leen daan jiite ñuy julli waxtu wu nekk ñu koy gis ni mu koy defee ñu koy defee noonu nga xam ne suñ Touba ñi mu te kàbbar kenn di des ba noppi bu noppee moo leen di jiite sikkar su xumb ñoom ñëpp ànd ak moom di sikkar mu leen di mat ci di leen tarbiyee ñuy àndandoo di sikkar ak eh, jàng ak jullee Euh, jaamu yàlla ca jaamu yàlla yu tar yu xonq yooyu nga xam ne moom lañ doon def ak moom ñooñu moom pratique gu murid gi Sëriñ Tuubaa di woote dëgg ca lañ nekkoon moo tax fa njëkk keneen ñi ci toppaat mooy génération bu yeneen bi ci des tamit fekk nañ ñoom tamit jaxasoo nañoo sëñ bi ndax dem nañ gànnaar nekk fa ak sëñ bi di jaxasoo ak ñoom donte ne am na ñeneen ñu leen di rax ñoo xam ne bokkuñ ca bokkuñ ca yëf yi sax nga xam ne ñu wàll siyaan si ñii dañu siyaare si ñii nangam la waaye mais ñooñu itam am na loo xamante ne ñoom it keneen amu ko ci ñoom ndax am nañ ci pratique donte am na ci ay yangoo jaajaat yu ci am yoo xamante ne moom eh, kenn kenn kenn kenn amu ko bi ñëwee jolof nag ba ñëwaat njaareem foofa nag moom mën ngaa wax ne moitié moitié rek am na ci ñoo xam ne dëgg-dëgg ña ngi woon ci yëf ya ca ca ca la Sëñ waa jàngale di ko pratiquer ni mu ko doon jàngalee mooy saa yu gestoo ci jàkka ji gis leen lam leen sant duñ ca teggi ak karan nam leen ko santee lañ koy defee waaye am na ñoo xam seen bopp lañ fa nekkaloon adduna jee leen fa indi woon mooy li Sëñ Fallu daan wax naan minkum wa minkum waaw ah, yéen ñi fi ñëw ñëpp daal kenn ku nekk am lu ko indi ñaar ngeen rek minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira yéen ñëpp ay murit ngeen moom kenn ku nekk nammee la ma ko fi indi ah, am na ñoo xamante ne wut ngërëmal yàlla li taxoon murit gi sansu moo leen fii ni mën ko mën yuridul dunya mën yuridul axira waaw am na ñoo xamante ne soos yu baax yi nga xamante ne moo fi nekk ak xaalis beeg yooyu moo leen fii indi ñoom tooy tooy yore indi ñoom ko mën yuridul dunya waaye ñoom ñëpp la leen fii indi Sëñ Tuubaa am na ko ndax ñoom lépp yàlla daf koo jox yàlla jox na ko adduna ba mu doy sëkk mu jox ko àllaaxira ba mu mate ko ba mu sëkk kenn ku nekk loo fi wut seet da nga ko am mi nga ci ne ko wutee loolu nag ci ni mu wutu yonte bi alayhi salaatu salaam ci la bokkoon ndax yonte bi ba mu gàddaay de ne ku gàddaay doo am dara déedéet danañ am na ñuy gàddaay ñoo xamante ne gàddaayu dëggantaan gi yëkkatiwu leen waaye du tee gàddaay nañ <laughs> te la leen tax a gàddaay mën na xam ñoom ko ah euh, a'maalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa fa man kaana hijratuhu ilallaahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallaahi wa rasulihi man kaana hijratuhu dunya yusibuha aw limraatin tunkahuha fa hijratuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi ilayhi waaw loolu nag loolu nag noonu la amee fii tamit minkum wa minkum minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul man yuridul axirati ñooña tamit la leen fi indi woon noonu la demee loola nag njaareem ja daanaka mooy référence su suñ ginnaaw 1927 ba fii ñu toll mooy pëccëxoo lépp am na ci biir ci biir yëf ci pratique bi daa gën a yaatu rek njaareem dafa tënku woon léegi ne dafa gën a yaatu moom ña ko daan dund ña dund njaareem lu leen neex ba léegi mën nañoo gën a bëri mën a gën a yaatu waaye yeesut maanaam du lu yees ci murit gi daal lu yees ci ñu gis ñoo xamante ne ni ñuy pratiquer wuutee na lool ak théorie bi li suñ tubaab wootee li ñu def leneen la moom waaye noonu la amee ba tey jii mooy wax ba suñ jonn yàlla tey na ma amee woon ci njaareem ñoo xam ne itam li suñ tubaab di woote moom lañ jéem a xam waxtu wu nekk ci lañ jéem a teg seen tànk seen kem kattan loolu mooy mooy quatrième génération bi nga xamante ne mooy njaareem ju yaatu laa koy tuddee moom mooy njaareem nga xam ca troisième ba rek moo ne ci quatrième moom mooy njaareem ju nga xamante ne maanaam foo leen gisee fekk leen lii nag mooy ni loolu suñ bàkk bu sa wax na ko pour joxee ci ab tegtal suñ bàkk bu soo dafa wax ne euh, murit gi ñetti xaaj la euh, xaaj bu njëkk bi loolu lii mi ngi ci an nubzatul mubaarak suñu saagee jàngal na ko barke di barkaat dem rek ci ci waajal màggal bu Cheikh Mamadou Lamine Diop ak Dagane lettre bu bu suñ lu suñ mbàkk bu soo wax la moo reprendre ko foofu lu wax ju siiw la itam murit gi ñett xaaj la da koy misaal daan su doon misaal li Sëñ Tuubaa di woote daal da koy misaal ci aw ñam aw ñam wu xeeñ wala lu ñu jëfandikoo rek lu xeeñ daane bu dee ñu njëkk ña mooy génération bu njëkk ba mooy mooy li ma tuddee woon Mbacke Kajoor ba Touba wala ba Mbacke baari nee na génération boobu moom xet xetu ñam wi Sëñ Tuubaa yor xeeñ na leen ñëw nañ ba mos ci na leen ñëw nañ ba mos ñooñu moom mooy ñi nga xamante ne ñoom am nañ lépp moom seen seen bamba maase na daane deuxième génération mooy ñi nga xamante ne maam xet gi xeeñ na leen waaye moom jotu mos jotu mos ñoom moom xet gi xëy na leen bañ ñëw kër kër kër groupe gur gur egsi waaye moom jotu mos dara ñoom daan ne ñii fi nekk tey nag nekk nekk nekk njaareem moom ñoom xet gi sax xëy ñu leen mosuñ defuñ dara xawuñ sax xawuñ li sax li sëñ bi di wax loolu nag bu koy wax mooy ñi ëpp ci ñooña moo tax mu koy wax comme ni nga xamante ne rek ñi ëpp ci murit yi man naa am la ñuy def ak la sëñ Tuubaa jàngale woon leneen la am na ci ko xam boo ne ko woon pëkk pëkk eh, li ngay def nii foo ko teg ci li sëñ Tuubaa jàngale du la ko wax mm-hmm. eh, yëfi boppam la yoo xamante ne moom moo comprendre noonu te yëf yi du ni ko comprendre yow waaye ni ko sëñ bëggeel ni ko sëñ Ahmad Njaay di waxee mm-hmm. kon pratique bi noonu rek la demee li sëñ Tuubaa doon jàngale daal ba tey jii suñu jonn yàlla tey am na ñu koy def ñu ca nekk sax ca mm-hmm. minorité lañ ak ak majorité lañ loolu du maa koy atte waaye ñi nga xamante ne ñooy ñoo mën a comparer jël li ñu waxoon ci théorie bi jéem koo nat ci liñ gis ni ñi di ko jëf ndax loolu la wala du loolu ñooñu mën wax xool ba xam ndax li ëpp ci murid di loolu lañ def wala déet loolu yëpp boo ko boo ko boo ko boo ko xoole mën nga mën nga mën loolu daal moom mooy moom mooy yi nga xamante ne mën nañ koo jàngal ci pratique bi Mhm. loolu am na solo lool ndax loolu dafay daal di gën a tekki rek eh, wax sëñ Mbay Ngiraan boobu noonu mhm. eh, ci ne wax gi mu wax daal ne ma murit gi nekkul yow ni nga ko comprendre mhm. waaye loolu mooy lislaam waaw lislaam mooy nekkul ni nga ko comprendre Seydina Abu Bakar eh, radiyallahu anhu daan wax ne diinu mabniyun ala naq la alal munasaba waaw maanaam diine ci jëlee nañ ci yonent bi mu jëlee alayhi salaatu loolu loolu ci loolu la tege mm-hmm. waaye tegewut ci xelum doomu aadama kese mm-hmm. kon murit gi tamit noonu la dem ndax euh, lislaam la waaw kon mënuta euh, mënuta def nen mel nen lool waaw kon mënuta mënuñu koo jël tege ne wala boog mu taxi ñu jàpp ne dafa tege nii ba noppi lislaam tamit dafa dafa tege nii kon mm-hmm. loolu moo tax euh, ni nga koy ni nga koy ni ko sëñ bi di jàngalee. Hmm. noonu lay demee waaye nekkul yow ni nga koy ni nga koy comprendre. bu hmm. defee nag leeral nga bu baax a baax ci hmm. ni nga xam ne pratique bi noonu la noonu amee kon tey it xam naa loolu mooy dañuy daal di eh, dugal ci question bu mujj bi rek. mooy pratique boobu noonu biñ ko biñ pratiquer loolu noonu. moom la lan la leen jural. ah très jërëjëf si jërëjëf jërëjëf si Seydina Omar eh, foofu. ñi nga xamante ne ñoo njëkkoon ñooña. Mhm. bañ pratiquer lam leen jural seen diggante mhm. lañ doon wut dañ ko am. Mhm. loolu leen jural. lam leen jural mooy lañ doon wut am nañ ko. ñi doon wut yàlla egg nañ ci yàlla ba ses sësti rek. te ñooñu yàlla rek leen taxoon a jóg nag ndax dara luy neex wala luy luy xeeñ lu neex wala lu koy nur am fi woon. yàlla joxoon ko cor la woon ñu ñëw. bañ ñëwee tamit la leen taxoon a jug mu yàlla ju ju ju saf sapp am nañ ko ba doyal sëkk ko ci jël ca ñoom njëkk yar rek ko egg ci yàlla la jëlal sëñ Mbàkke Buso maanaam kenn du ko tudd mukk di ca teg lenn lu dul maanaam ak ak ak baax ak am xam-xam ak a nangam ak a nangam mu di saadix la moom egg na ca siddi ca darajatu siddiqiya ba nga xamante ne moom lañ doon wax mooy boo nattee jëlee ñeenti was wala ñeenti mbir yi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa nee na mooy melokaani murit saadix da ko ci fekk bëgg nañ Sëriñ Tuubaa bëgg gu wér topp nañ lépp lum leen mas a digal topp nañ ko ñaareel ba mësuñoo gaa déng-déng intiraat mësuñoo am ci loolu mësuñoo am ak tànn ci seen bopp yi te salabul ixtiyaar daa masa a am ci ñoom melokaan yooyu koo ko natt ci biir génération boobu boobu moo demee mañ a tudd ay di lim ay di lim di bàñ ñenn ñi wala may may lim ay tur di gën a guddal waaye ñett génération bu njëkk boobu koo ci jël ñeenti melokaan yi boo ko tegee ñeenti balaas yi boo ko nattee ci moom day day mat sëkk mbubb moo ci dagg rek boo leen ko sololee day yem ci ñoom képp ñu bëgg Sëñ Tuubaa lañ bëgg gu wér gu dëggu ca ñoom te li koy firndeel lu bëree bari la wax nañ ko ci seen mbind jëfe nañ ko ci gis ndax nit bu bëggee mbir da koy jaral te ñoom suñ tubaab jaraloon na leen lépp ba jaral leen seen bakat daarul man naan fii bi tubaab bi ñëwee ànd ak mbaaxaan ñu war a jël si waat suñ tubaab ñoom ñu ànd ak tubaab yi ak seen armée bañ àndal ak yooyu bañ tumaale suñ tubaab ju rëy ja mm-hmm. tuuba joo ja ñu ko doon wax naan ko da ngay jihaad mu leen wax maqaalukum inni ujaahidu saaqid saadiqun inni li wajhillaahi jalla ujaahidu inni ujaahidu abdan xadiman wal muhayminu shahidu bu luñ ko waxoon nde ñoo tubaab bi xanaa ngay dañ ñëw rey ba jeex takk rek waaye duñ la fi jëlee moom ngay demaan mukk di ñu sori ah. ak bëgg mënta wees foofu ak jaral mënta wees foofu mm-hmm. lu leen suñ tubaab ma sant tamit def nañ ko mm-hmm. am rek mm-hmm. lu leen suñ tubaab masa sant mu neex ci ñoom ak mu naqari ci ñoom dañ koy def xam nga magum jëm moo xamante ne am na kër samp kër ñenn ñi sax am ay doom am ay njaboot nga xëy suba jox ko danga ko kolkalub cere ne ko mëqal mu mëq nga jox ko kaasum ndox ne ko naanal mu naan nga ne ko ci ngay yem ba subaati wëriwul leneen lu mu lekk lu dul loolu nga ko wax mu yem ca la mu wax ca moom dëgg la léeg léeg-léeg mu nekk kubéeru setal ak ndox nga jox ko ko mu naan ko ba waxtoon ba waxtoon ca suba ga loola buñ ne buñ waxee ne bëgg nañ suñ tubaab bëgg la dëggu na suñ waxee su leen lu leen suñ tubaab mas a digal yi dem def nañ ko ndax ku xumaag dëggu xàtt la woon tuubaa gii bañ fi ñëw ab gent la woon du dara kon topp ndigal suñ tubaay lu leen mas a digal def nañ ko intrat mooy déng dengal wala gaara-gaaral suñ ko doon am ñoom ñëpp ci benn génération lañ nekk ñenn ñi suñ tubaa ñaari at la leen magee ñeent ñi at ñenn ñi sax ñoo ko ñoo ko féete ak mag waaye mësu leen digal dara ñu ciy déng-déngal suñ naroon nekk ci di ay déng-déngal ak yooyu duñ ci duñ ko topp kon da lay ne boo leen nattee ci ak deng-deng nekkuñ woon ñuy deng-deng salabul ixtiyaar mooy wutuñ woon ci seen bopp ak tànn loola la koy firnde lu bari la gis nañ fii koo xamante ne ci njëkkoon topp Sëñ Tuubaa nekk daa dajale waa këram ak soxnaam yëpp ne leen su leen neexee ngeen ngeen jàpp idda bu idda jeexee ngeen wuti ay borom kër ndax man bu ma gisut sama sang ba Sëñ Tuubaa du ngeen ma gisaat kooku moom bàyyi nat ak tànneefam moom amul lu mu tànn ci boppam moom Sëñ Tuubaa la te mu jaral ko bàyyi léppam bàyyi soxna bàyyi doom bàyyi lépp loola lu tax sëñ Tuubaa mii mu ko jaral kam doon tarbiyu loolu la ko jaraloon maxat mahabatiyal muxtaara sayidina xobbil maxaaniya wal ahliina wal walada yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma gënal lépp lu ma am sama yëpp moo ma gënal loolu la ko loolu la la ko ñooñu fayee kon ñu njëkk nekk ca génération bu njëkk ba seen pratique bañ teew la Sëñ Tuubaa jàngal nañ ca jaaree lam leen jural mooy nekk di egg ca xaaye ba mooy egg ca finalité ya nga xamante ne mooy li Sëñ waa doon théorie mooy nekk ay murit saadex rek sës rikk fa seen boroom ba nga xamante ne koo jël rek mu nekk góor yàlla gu mat sëkk am koy mat sëkk lañ ko doon doyee mën a wommatee di yóbbee ca yàlla te loolu mooy dëgg-dëgg li jubluwaay Sëñ waa yonon murit bu nekk jubluwaay moo war nekk loolu mooy egg bay eggale moo war nekk moom ndax taalibe bi dafa war a aju ci ku egg uh, woola mu woo matu koo xamante ne da koy mën a eggale mm-hmm. wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksiin fasal mm-hmm. koo xam ne jokk na ci ku mën a eggale dana egg waaye ku jokkut ci ak buum goo xam daa dog mm-hmm. eggut fii maanaam doo egg fenn waaw loolu loolu loolu la leen jural mooy génération bu njëkk boobu ngir tontu ci laaj boobu noonu bu dee ñi nga xamante nag ñoo ñoo ñëw ca ñaari génération yi ci des ña ca ña nga xamante ne fóon nañ mooy ña ña ña ñëw gànnaar ak yooyu ñooñu rek ngay gis ñoo xamante ne ñoo raw ñu dul ñoom egg fa ñu war a egg man la ñëpp di man ndax bëri na ñu ñu tudd ñu nekk ay kàngam yoo xamante ne ci foofu lañ bokk ci génération gànnaar boobu lañ bokk bu dee ña nga xamante ne nag moom ñoom ñoo xeeñu xeeñtu wut mosuñ muy waa waa njaareem moom am na fa ñoo xam ne sax dañ fa dañ faa jugee torox am na fa ñu torox ñoo xamante ne eh, bi fi Sëñ Tuubaa di jugee dañ leen jàpp tëj leen kaso am ñoo xamante ne dañoo mujj di wër di nag a ñàkk lañ mbo torox daal torox daal di bi ci ci boo ko moo a waxee noonu di jéggulu bu baax a baax ci baat bi ma nga xam ne moom laay wax dañoo mujj ndey saanu lool yërëmtal lool lu tax mooy nekkoon ak ci Tuubaa mu baax mi ba noppi daal nekk ci kër Sëñ Tuubaa ga nekk fa la leen neexe moo tax loolu sëñ bi waxoon na ko ci lu leer dana woon nekk fi man ak nekk ci sa bopp bokkuñ ku nekk ci man nekk fi ci sa nekk ci man nekk ci man dinaa la yóbbu ba nga egg fa nga war a egg ma jébbal la rabb mu yeggale ba sa borom dugal la àjjana boo liggéey ma dugal la àjjana ku nekk ci boppam nag ma balaak sa bopp ma balaak sa bopp te sëñ moom ku mu sa bopp la nga jëf rek ngay góob la nga jëf rek ngay góob ñooñu nag dañoo nekkoon ci seen bopp la sëñ Tuubaa nañ ko wala xaw ma ko mën naa leneen la waaye jëfewuñ ko la koy firndeel mooy fañ mujjee ña àndoon ak sëñ te jaar fañ war a jaar xam lañ war a xam mujjeewuñ foofu naka noonu itam ci murit gii gubees gii nga xam ne moom ñooy quatrième génération mooy njër njaareem ju yaatu ji danga nga ciy gis ñoo xam ne moom bu soobee yàlla la sëñ Musaa ko waxoon bu ëllëgee daal bu sëñ bi gaawut a yar dana day gaay moom yar yi dana dal gaay bu baax ndax li sëñ Tuubaa doon woote ak fi ñu nekk soree na lool eh, kàddu yu am solo yooyu ak ci leeral googu loolu yëpp rek daanaka mooy eh, daf may delloo ci sàng li ma doon waxaat ngir ne maanaam murit yi moog lislaam ji dañuy benn dañuy mhm. benn mhm. mooy ngir ne boo ko delloowaatee ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom wootee saxaaba yi tamit mhm. fekkoon leen ci mën a wax ne jullit seen borom loolu bi koy bi ñoom mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi def na ci yow loo xam ne mm-hmm. ba nga fa jógee mm-hmm. wane nga ko ndax ñenn ñi ci ak ci ak teewam lañ leen commencé di leen woowe ñi ñu leen woowe séddiix ñi ñu mhm. leen woowe ay faaru mhm. kenn ku nekk mhm. ñi leen woowe si nuuré nekk am na yooyu sax yeneen la waaye kenn ku nekk dayoom yonent bi sallallahu leeral na ko ba wane ko te ñoom ñooñu tamit niki noonu la fii ndax ñu bëri si ñoom ñi ngay wax nii boo koo ci toppaa sëñ bi def na ci ay seede am na ci ñoo xam ne ay al muridu saadiq leen doon woowe loolu am na ci waaw ah, kon loolu day daal di firndeel rek ne mhm. ah, bañ ñëwee mhm. ah, maanaam woote bi mhm. lim leen doon woo nekkut loo xam ne ay ay naxe la woon waaye da leen doon woo ci lu leer loo xam ne bañ ñëwee fekk nañ ne kat njëriñul kese la mooy malaasun wa mafsan googu noonu nga doon mafsan nga loolu day daal di firndewu bu baax a baax a baax a baax ci ni nga xam ne biñ ñëwee pratiquer eh, li nga xam ne moom leen sëñ bi doon doye ñoom ñëpp kii nañ ko maanaam am nañ ko ca mhm. kon loolu ay kàddu la yu am solo yoo xam ne lu mat a bàyyiwaat loo xel la mhm. surtout nag kon xam naa day daal di dañuy daal di tënk rek mhm. moo nekk peut-être dernière question bi waaw ñu wax ne kon jamono ji nga xam ne njaaram ji ji nga xam ne li xew bari na lool <laughs> uh, ba tax tamit mu aajowoo ak ak jàngataat ci lu baree baree baree bare kon daanaka du ñàkk ay kàddu yoo xam ne kàddu yi dénkaane lay doon ak kàddu soññee bu baax a baax ngir nag mhm. ñu mën a xam bu baax fan la ñuy fan la nit ñi teg seen tànk mhm. ndax nag yëf yi du ay caaxaan dëgg waaw ah, surtout ku xam dëgg-dëgg yi leen mooy murit waaw mhm. ah, ku xam dara ci ci murit da nga xam ne yëf yi du du nekkul ay caaxaan waaye yàlla ju sotti la te yàlla nag mbirum yombut waaw ah, li sëñ Muntaxa di wax ne dañoo sëñ Basiru ko wax ko la déet maam sëñ bi am na fullay fi nga ko yem ci sa bopp maanaam mu yem la fa waaw kon loolu dafay firndeel ne rek hmm. nit ki bu fekkee ne dafa jóg ne moom lii lay kii hmm. war na lii lay woote woo loolu war na caa jéem war na caa góorlu bu baax a baax hmm. te xencu mbooro moomu waaw ngir mu ngir nag mu mën a xam fan la teg tànkam waaye tamit man caa amee tamit bu àggul ci ñële tamit man leen a man leen a koy jege kon daal xam naa du ñàkk ay kàddu yoo xam ne kàddu yu dénkaane lay doon sëñam di bisimilah yoo xam ne jërëjëf sëñ sëñ sëñ day mel ne kàddu yi dénkaan yooyu sax liñ ci njàmbaas ni mën su ko cee weesu mënee su ko cee weesu mooy eh, fi ñu war a fi ñu war a dellu fu war a dellu ndax fu ñu dellu la ña nga fa woon am na ñu fa nekkoon ñun ñii ñëpp ñi ñu wuutu mooy suñ maam yi ñëkkoon a ànd ak suñ tubaa ñoom fa lañ nekkoon te yàlla ju we xattu jooja nga xamante ne moom lañ suñ tubaa eh, wanoon ñu cay liggéey ba jur njariñ lii yëpp léegi amuñu wulay ñun ci ñàkk dellu foofu ñoo xam ne amuñu fu baax fuñ dëkk amuñ woon amuñ woon amuñu woon ñun nag léegi am nañ am nañ am nañ am nañ kon nag dañoo war a dellu foofa ñu nekkoon ñoom kon nañ dellu maam xaana waxtu rujuuci xaana waxtu rujuu dañoo war a dellu dellu foofa ñooña nekkoon waaw dellu foofa nag euh, léegi-léegi boo ko waxee ci ab <coughs> bu nga ko wax booy wax dellu retour lay firi ci tubaab ñoom suñu saañ yi ñoom dañuy wax ne murit gi amul tànki ginnaaw tànki kanam la am te am na tom bu am solo bu suñ Fallou bu soo xasan waxtaane woon mooy tànki ginnaaw yi njàngalem suñ Tuubaa boo ko waxee ci boo ko waxee day xaw a garaaw lool waaye daa am lenn rek lu koy expliquer retour bi du deltu ginnaaw waaye appuyé wu ci ginnaaw la ngir mën a avancer tànk bi ci kanam nii bu ma defoon nii benn position boo xamante ne day war ne man maa ngi jéego nit ki boo seetloo dëgg-dëgg tànk bi ci kanamam du ko tax a avancer maanaam tànk bi ci kanam taxu koo avancer maam tànk bi ci gannaaw ci lay avancer nax bu jëlul bi ci gannaaw ñëw nii du dem ci kanam parce que bii bu ko yëkkatee maanaam fu ko yëkkatee bu da koy tegaat rek wala fa koy teg du sori. wala dana ci sonn lool te fa mu koy teg du tax a sori maanaam pour mu avancé un pas il faut mu jël tànk bi ci gannaaw pour mu fekk si tànk bi ci kanam loolu moom loolu lañu ñu war a xool mooy delluwaat ci gannaaw xool fi gaa yooya nekkoon ak sëñ bu mag mi xool lañ doon def ak lañ nekkoon loolu nag du du xool ko xam nii rek waaye dañu war a am pas-pas ak pëstee fi nekk fañ nekkoon ñoom jëfewut ba ki dem rek am na am na ñu ma koy wax. ma ne leen day mel ne génération bees bi gis naa ne bëgg-bëgg bi ak pas-pas beeg Pastef bi wax dëgg yàlla jàmbaar lañ jàmbaar lañ bu baax dangay gis ñoo xam ne dañuy gëstu di nga xam ne dañuy wér ne ñoom am na ay mag ñu ñu xamoon ñoo xamante ne ñoom fi ñu toll ci sëñ bi ak li ñu xam ci sëñ bi mag ñooñu xamuñ ko woon ci sëñ bi tolluñu woon foofu loolu sax ñoru leen woon waaye liggéey boobu dafa war a gën a yaatu gën a bari warut a nekk minorité ci biir murit gi te dëgg-dëgg li am mooy minorité bi ñooy ñi nga xamante ne ñoo jaar fi sëñ bi bëggoon ñu jaar waaye ñi ñëw ñëpp wuy si woote bi dañoo war a xam li sëñ Tuubaa di woote ndax sëñ Tuubaa dane yaquudu ahmadu ila saada yadul mala bil ilmi wa saada yadul mala bil ilmi maanaam xasru boobu lu am solo la mooy dama woo ñi waaye maa ngi leen woo ci lim ñu ñu gëstu li ma leen di woo lan la nañ ko xam waaw Sëñ Tuubaa bu ñu xamee li mu woote danañ mën a jariñ waaye bu ñu ko du jariñ kon nañ delluwaat ci li nga xamante ne moom la Sëñ Tuubaa jàngale ñu ñëpp ñu jéem koo xam jéem a xam li sëñ bi bëgg ci ñun ñu def loola ndax li Sëñ Tuubaa bëgg saa yu ko defee Sëñ Tuubaa moom lim ñu dig añ ci jot te mooy texe ak àdduna ak àlaaxira foofu laa koy naa nga daaneele rek foofu mhm. la ñuy daal di jële mhm. euh, mooy ne euh, yëf yi moom mën nañoo wax daal ne ma nga fa maanaam ma fa ndox maa ngi fam nekkoon mhm. kon daal li am li am solo mooy ku fexe ba taxaw ba waajal sa bopp wut ab baag bu baax jàpp naa ne boo rootee wala boo dugalee sa sa sa baag di nga génneem ndox kon nag yëf yi foofu la nekk Mm-hmm. bu ko defee kon day daal di nekk sonni eh, kàddu yu soññee yoo xam ne ñëpp lay làmb mm-hmm. man ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. bu ko defee ngir ñu gën cee bàyyi bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax xam ne yëf yi du ay caaxaan te it yëf la yoo xam ne comme ni ma ko waxoon sàng rek yëf yi suñ borom la ah, ku tedd ki ci loolu la nekkoon te ci la woo ci nit ñi mhm. kon nag dafa jot sànq bayit bi nga wax rek dafa am lu mu teg yedd yeddoon yeddoonal mala bi ne almi waaw day mel ni ki <laughs> yëf mhm. ak lu la man di wax mu mhm. te ñàkk maanaam ak xam gu leer goo xam ne di nga xam ne sëñ bi lii la doon woo boo xamee ne lii lañ doon woo nag su boobaa nag góorgóorlu ga ak jéem a dox ak jéem a am passeef ba yegg fenn fi su nag day daal di ñëw te su boobaa it boo góor sàngare li ñu doon wax sëñ bi moom sëñ bi la daan na ko wax mhm. soo ko defalee loo mënut mhm. mu defal la loolu jom mhm. comme ni mu ko waxoon ba mu àgg kon yooyu yëpp day daal tegtale rek maanaam jëf gi ak góorgóorlu gi mënta ñàkk yooyu yëpp am maanaam bi tegee ci xam-xam bu wér su ko defee li sëñ bi woote woon ñu man cee am yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax moom nag ku ku ku teel a dégager ay responsabilité am la maanaam wax na bu baax moom fi mu taxawee ndax képp koo xam ne da ngaa bëgg ànd ak moom mënul ñàkk nga ñëw taxaw nekk ci lim nekk nekkoo ci lim nekk ba noppi maanaam bëgg tamit mu defal la ñi nekk ci lim nekk lim leen. lim defal waaw loolu moom. jàpp naa ne xel waaw xel du ko nangu daal. kon xam naa dañuy santaat bu baax a baax di am mbégte bu baax. ci ci kàddu yi te ñaan borom bi eh, nangul ñu liggéey bi ñu fi liggéey yëpp. di santaat ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi doon topp eh, jataay bi mm. di di di ñaan yàlla ñu yàgg koo teewe yàgg mm. koo dundal mm. waaye suñu borom gën ñu cee gën ñu cee defal tawféex tamit nangul ñu ci tamit lépp loo xam ne jëf nañ ko ci di ñaan yàlla tamit yàlla yokk xam-xam bi bu baax a baax a baax ak wér geeg kattan geeg yëpp lépp loo xam ne yéen a ngi koy liggéey yéen a ngi koy yéene liggéeyal ku tedd ki borom bi defal leen ci lu kawe seen jot defal ñu ko ñëpp kon foofu la ñuy daaneele kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر صباح وفي إخدام خير الورى